mbokki internet Chrono Actu daal leen jàmm ci xibaar yi ñu fas yéene ko doore ak jafe-jafe yu ñu nemeeku ci hôpital Dantec foofe nag jàppale leen ni lépp luy donné ci diggante atum 2020 ak 2021 daal dinañ koy ñàkk mu doon nag jafe-jafe bu tar ngir ñu mën a def lu ñuy duppee traçabilité des données professeur Awa Oumar Touré service d'aide au diagnostic hématologie moo ko daal di xamle yemu ci daal dinañ wax ni itam ci boobule hôpital Dantec daal nañu fay jànkonte ki jafe-jafe jëmale ko ci ñàkkum ndox ci laboratoire yi ndaxte personnel bi nga xamante ne ñoo fay liggéeyee ci bëccëg yëpp dañuy takk ak deret waaye du teene bu ñu noppee du ñu am sax lu ñuy raxasoo seen ay yoxo hôpital bi daal dafa mel ni dañ ko rek daal di abandonné bu ñu sukkandikoo ci professeur Awa Oumar Touré mi ko daal di fësal desandi ci wàllum wér-gi-yaram ak faatuk astu soxna fale ci Louga sage-femme bi nga xamante ne moo monté woon bés boobe ak yenn ci ay aide soignant daal di wëyal bi ñu daal di noppi euh, ci l'enquête yu ñu daal di ubbi ci boobule fànn bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yi RFM ñu joxe boobule xibaar suspension yooyu nag mënees nañoo dem ba ci fukki fan di fàttali ne président Macky Sall daal dinay sàkku ci di diirub ñaari fan ñu daal di koy tegal ci kaw taabalam ab rapport mi tukkee ci boobule mbir ñaxtu yi nag ñu ngi wëyandi ba léegi ndaxte ab sitting daal dinañ koy jàpp ci samedi ñaar fukki fan ak ñett ci weerum avril gi ci place de la nation samedi bi yemoo ko koo jàppoon waaye nag ñàkkum autorisation moo tax ba ñu daal di koy toxalaat kuréel gi ñu duppee astak patient en danger ñoom ñoo ko fas yéene daal di amal ngir rek sàkku yoon def liggéeyam ci mbirum astu soxna moome ak ñeneen ña nga xamante ne daal nañuy lorule ci ay mbir yu mel nii wax ci politique ak élection législative yu ñuy dégmal Benno Bokk Yaakaar bu Ndakaaru daal nay def ay jéego jëmale ko ci utum parrainage yi ginnaaw bu président Macky Sall wone seen mer ci seen kaw mu jàppoon ni kon dafa néew lool buñ ko méngale ak ñii di waa Kaolack yi nga xamante ne daan nañ koy jëbbal téeméeri junni signature ci noonu nag responsable benn Bokk Yaakaar yu dem fii ci Ndakaaru daal dinañuy takkaat seen ay ndigg wàccaat ci askan wi waral ñu daal di dajalewaat lu tollook juróomi ñaari fukk juróomi junni ci ay signature ni ki démb la ko Amadou Ba daal di xamle ginnaaw bu mu woote ab ndaje ci permanence su APR ba ba tey ci wàllum politique ak Adama Faye mi nga xamante ne goro président la fii ci Grand moom nag daat nay xamle ni ci élection législative yi ñuy dëgmal dina ci bokk ci ab conférence religieuse la ko xamle ci week bi ci Grand Yoff mbokki internet Chrono Actu lii lañ leen indiloon ci xibaar ni ki tey jile dig daje ëllëg lay doon incha allah si gën a jotaayu xibaar jàmm ak jàmm